merci euh, man c'est Maguette Ndoye Ndiaye euh, dëkk Taaxum euh, di acteur de développement nekk coordonnateur de l'UDT Union pour le développement de Taaxum président de And Taxawu Taaxum et membre de la coalition And Taxawu Malicounda tey waaw euh, merci Abdoulaye euh, je pense que tournée tey bi moo nekk euh, la seconde épisode euh, suite à la première bi nga xam ne amaloon nañ ko au mois de euh, au mois de de mai mai juin ci première vague bi joxe woon nañ ay moustiquaires mais boobu dañoo ciblé woon les femmes commerçantes femmes yi nga xam dañuy jógee taaxum dem mbuur di jaay parce que moment boobu élèves yi ñu ngi woon ci kër yi toog jàngeetuñu woon mais bi ñu reprendre école yi mu am deuxième vague dañ ni kon nañu jox cette fois-ci les élèves comme ñu ngi si école yi di jàng euh, ce qui que tey dem nañu joxe masque ci école taaxum 1 taaxum 2 ci collège bi mais également joxe nañu masque ci école arabe yi ak école euh, daara coranique yi nekk foofu ci ci euh, ci taaxum bi yëpp euh, ngir contribuer à l' application du protocole sanitaire édicté par les autorités sanitaires donc ngir mën a taxawal li nga xam ni moom la autorités yi digle ci xeex mbas mi maanaam di takk masque di raxasu wala di daanante donc ci yooyu ñun dañoo gis ni Euh, dañoo waroon jox xale bu nekk élève bu nekk masque tey yi def nañ ko euh, boo xoolee lu toll ci euh, quatre 1081 masques ci école nasaraan yi rek joxe nañ ko sans compter les effectifs au niveau des daara boo xamante ni avoisiné ci du mat 500 masques donc kon tey mun naa ni mille cinq cent masques à peu près ont été distribués. léegi Euh, oui, accueil bi ça a été très très chaleureux euh, très chaleureux ndax euh, fépp fu ñu dem dalal nañ ñu avec aussi bien l'équipe pédagogique mais aussi l'association des parents d'élèves était présent les notables ñu ngi fa woon kontaan si mbir mi sant ñu gërëm nu ñun itam ñu kontaan si lool ndaxte aussi Euh, amuñuy lu suñu localité donc euh, vraiment ça a été une satisfaction à ce point. merci beaucoup est-ce que nga pérenniser loolu maanaam fas yéene ko lawal fépp ci biir kër euh, de de de donner joxe fépp fu école am moo xam école suuf la école diggu daara yi diggu doomu yi wala école kawe yi waaye nag. comme école dañ bëri euh, peut-être dinañ def suñu kéemtalaay kartan ba collège au moins collège bi ne ci commune Malicounda bi yëpp ñu ñu jox leen masque donc loolu daal bëgg nañ ko def bëgg nañ daal fii quelque quelques ñu couvrir au moins collège yi nga xam ni nekk nañu fii ci ci commune u Malicounda bi. am na benn jàngat yow yaa boo xoolee dispensaire bi nee na am na lu manqué yeneen daara am na ñu manqué ak école yi ak jafe-jafe yooyu yow nga nekk doomu dëkk bi erreur boobu kan moo ko def ndax doomu dëkk bi ñoo ko war a taxaw ou bien commune ak erreur bi waaw xam nga erreur boobu euh, mooy ñi nga xamante ni ñoo ne ci ci ci commune bi euh, dañu ginnaawal taaxum quoi franchement parce que boo comparé taaxum ak yeneen dëkk yi rek dangay xam ni taaxum des na lu bari yow dem nga fa te dem nga ci yeneen dëkk yi. gis nga jafe-jafe ya fa am euh, tey laata ñu faa dugg ak suuf si metti woon na euh, donc loolu euh, kenn wanu la ko kenn waxu la ko da ci teg sa bët am na yeneen jafe-jafe ay dëkkuwaay yu yu yu convenable lu war lu demee ni ci assainissement bi mais wax nañ la fi ñu mujjee dem wax nañ la problème mu forage bi forage bi nga xam périmètre maraîcher bi nga xam ne ñoom fi lañ doon bay ba nëga ni péri tool baa nga ne taxaw bay ñu demuñu dikkul loolu ay jafe-jafe la. lu ñu def foofu yëpp nga ne considéré ñu taaxum parce que def nañ foofu dara ah euh, euh, foofu yaakaar naa rencontré nga ICP bi aussi am na lu mu la fi wax ci ay jafe-jafe yoo xamante ni naam ne na am na lu ñu fi def waaye am na lu bari lu des euh, donc yaakaar naa foofu également école yi am na lu ñu la jooyt yow de vue gis nga xale yi nga xamante ni ci ay ay table banc yoo xam ni ay móol la gis nga ko ay móol lañuy toog. ci école arabe yi gis nga ay table banc mool yi nga xam ni ñu ngi fay toog donc tey loolu ay jafe-jafe la yu bokk yi nga xamante ni bokkul ak sax jafe-jafe yu mag yi parce que yow jafe yu mag yi introgé nga ma fi ma wax la ko nee naa la taaxum amul yoon wu fa jëm wax naa la suufu taaxum tey jii taaxum ak jilaax am na un différent foncier bu fa nekk ba tey ça n'a pas été tiré au xamuñu fan fan la taaxum yem xamuñu fan la jilaax yem donc jafe-jafe yi bëri nag forage baa nga ne wax naa la ko sànq mënuñu bay mënuñu def dara parce que ki ko jëloon euh, euh, ki ko yoroon donc war a arrivé à terme war a séddee tool bi séddee ko donc ñu ngi ne ci yéeg ak wàcc. waaw bien sûr bien une partie waa taaxum li tax ñu fàtte leen une partie parce que euh, xam nga olof Njaay day wax mbéjum ginnaaw nag mbéjum kanam nag boroom moo koy fajal boppam. bu ne toogee rek ni yàcc bañ a yëngu demuñu ñu wuñu ah mais ku fi ñëw itam utiliser leen bu amee ni mu bëgg dem wan leen ginnaaw parce que ku ne xam na ni taaxum moom c'est laissé en rade commune bi euh, defu fa dara loo xamante ni tey jii euh, euh, mën na productif pour pour la jeunesse taaxumaat tey jii xale yi amuñu jafe am nañu ay jafe-jafe liggéey. kon daal mun ci gàttal mën nañu wax ne yow xayma nga jafe-jafe yi ka taaxum di jànkuwanteel yépp ci wàllu ci wàllu ci wàllu njàng mi ci wàllu paj gi waaye tamit euh, ci wàllu euh, suuf si ni nga xamante ne noonu la demee tudd nga léegi li nga xam ne nii moo nekk diggante Gila ak kii loolu fu ci autorité communale bi toll waaw yéen ñi nga xam ne yéen a dëkkee foofu maanaam yan jéego ngeen ci def waaw fu ci autorité communale bi toll man mënu ma répondre ci loolu parce que moom peut-être moom moo ciy mën a répondre mais li ma mën a wax mooy lii mooy problème yi lii laa gis comme solution loolu laa moon tey ji poste de santé bi jooy nañ la ambulance boo xoolee commune bi fii am poste de santé bu ci am amul ambulance bariwul à part taaxu yow ña lañ nga dëkk ambulance a ngay gaare foofu da may sa fay ambulance a ngay gaare feneen ak noonu ñun amuñu ambulance donc mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni man gis naa ko fa te yooyu wax dëgg yàlla euh, su ma sañoon ñu apporte ci solution te ci loolu laa nekk incha allah lu lépp lu nga xamante ni mën naa ko dinaa ko def pour que ci problème yooyu ñu ñu trouver ci solution. voilà merci beaucoup. am na solo.